Um, asalaamaaleykum asalaamaaleykum fépp foofu waaye mun ci nekk di seetaan Eco TV International the People Choice uh, right now Swede Diagne moo leen fi dellu si waati seen programme bu fi dee nekk pour ndaw yi uh, mu ngi tudda da Chat mu nekk programme boo xam ne dañoo indi ndaw yi artiste ñawkat lu mu ti doon waaye mu nekk ndaw bu jógee si réew bi fii ñu waxtaanaa moom fekkee artiste la carrière am fu mu ko dooree ak lu moo def ak lu mu dee def even without being an artiste soo jaañ naar moo leen fi nekkal rek comme ni ngeen ko gën a xamee balaa ñu gën a sori rek dinañ bàyyi ñu seetaan benn music video suñ ges ñu waroon a am waaye far yàlla def benn fi ñoo represent ñoom ñaar yëpp affaire bu fa jógee vidéo bi na introduce gars yi waaye moom si boppam su dellu seen na gën a wax leen moom moo nekk kan ak ñoom ñoo nekk kan Eco TV da people choice with suy jaañ naar da caat su nañ seetaan vidéo bi dellu si waat not brother on the hustle. Not brother on the struggle. It's been a long journey. But if Panim Babarakunin Dua Jabu Wule in Cheers to success. da bing mam fen soto Wama nam fan yeah yeah sinana Meta katala watole sita. yeah Padua fo barako sinana Padua fo barako sinana sinana I do have a better cushion, nana. I do have a better cushion, nana. I'm nam and I'm yeah, yeah, yeah. Barke du jema kum feñ wone katanam Barke motax mang si win how ma ñaka man Barke la yore suma yaay njeka barke man bubu barke tas su don taw dina taka man Problemi chop mer mi ne ma am Problemi problemi chop ma gena ñefe man Problemi problemi du jeex nobody gives a damn Problemi tegi ñu la chop lulu ma fi am Wata daming mang feng soto Doni konton tai buka si bang soto Korgeto koto ta sama kono Kapoto lon saliba kono Doni wata daming mang feng soto Wama dina nam fantinya, yeah, yeah. Padua for barako sinana Padua for barako sinana Meta katala wato lesita yeah. Fadua for Barakosinana Fadua for Barakosinana Fadua for Barakosinana Fadua for Barakosinana Omatina nam fantinya Omatina nam kijang, sino tijang Hani manyinenka hosulule bijang Hani tijang, kunjeng ke tijang Doku nintara kosoda male bijang Akilo bijang, wakilo bijang Manjiki mola rescue tijang Bata bijang, meda bata lajang Ibatu yang minta kijang Mbata damin mamfen soto Nasali ba mansiran soto Napoli ba emano soto Bari naduran ba mansubo soto Tolpota damin mamfen soto Bomatina nam fantinya yeah yeah Padua for barakosi nana Padua for barakosi nana Me da katala wato lesita yeah Padua for barakosi nana I'm Fantina. Yeah, yeah, yeah. It's Jill Life Music. gannaaw bu ñu seetaanee vidéo boobu rek dellu si fii si studio bi Eco international de People Choice comme ni ma leen ko du waxee dee leen di seetaan télé bi follow leen ñu subscribe leen si all platform ay ndaw yu fi nekk la Gambie na ko moom xale yi la jël employé la ñu fi di liggéey ñaxa yóbbul seen kilifa yi ak fu ñu liggéeyee fii app bu ñu liggéeyee rek suñ fii suñ boppa leen ko defal defal ñu ko keneen ak follow leen ñu on all platform ngeen support lu ñoo def da caat suul ak suñ jaaj na waaye comme vidéo bi seetaan ngeen ko di ngeen jot a xam kan lañ fi xam waaye nañ ko bàyyi ñu wax ko welcome to the studio. Yeah, walaikum salam. Fena. <laughs> and thank you. All um, maa ngi cool. maa ngi cool baax. yaa ngi pare interview bi. ah bu baax. Ah. Mm. balaa ñuy gën a sori rek ah yéen seen groupe bi ñaar ngeen waaye yàlla def na yow kenn yaay ñëw ah bala ma yow nga introduce sa bopp ñu nekk si biti ñu xam kan lañ nekk di waxtaanal. ok yeah comme nuñ ko waree lifi rek dooree bismillah. Mm-hmm. yeah and for having us here. Mm-hmm. man maay LJ LJ of LJ and Swiss. It's a music group. Uh, and I think people know us as Team Kunda because we were formerly called Team Kunda. Yeah, so unfortunately Swiss dafa tukki dafa dem Dakar and man Mafi fi right now so but yëpp benn la. yeah. all right um, comme noo ko waxee LJ moo fi Swiss Swiss tam su fi nekkoon moo fay toogal LJ waaye comme noo ko waxee LJ x Swiss team Kunda lañ leen xamee bu neex ñëpp tur buñ mm-hmm. <laughs> a xëy rek gis ngeen change ko nekk the reason behind the change of the name. ok um, I think uh, la woon. team Kunda was a, uh, uh, a music group but. dafa am lu taxoon mu taxaw team Kunda means team Latrikunda Latrikunda so it's just ñu shorten ko to team Kunda mm-hmm. and then um, time bi taxawal it was more than three, two artists understand nga so it was a team time boobu noonu actually lu nit yi xamutoon sax mooy team ku na started with six artists si benn music group but then uh, after before we started before click la woon time boobu so before uh, time bu ñoo nekk music group a proper music group three bàyyi nañ and then three ñoo fa nekkoon so we kept the name team Kunda and then loolu lañ doon demee after all, the other guy moom mudem solo so it's just me and Swiss mm. and we felt ne um, uh, it was better if we rebrand understand mm. def loo xam ne nii dafaa match ak man ak Swiss lu ñu def mm. and then we felt tamne we needed to just use our names because boy it's malaka la ko if I tell you um, most people will call me Team Guna and they will call Swiss Team Guna for the longest time they don't even know our names understand so it's just team Guna always team Guna fu ñu la gis booy team Guna they don't wanna know our name so ñu ne ok for branding purposes ak uh, for other things I think it's better we stick to just LJ and Swiss. Mm. yes. ok noonu la fa ñëwee pour ah, nit yi mun a xam kan mooy kan ak yooyu noonu. waaye ba léegi nga ne six ngeen dooree woon. Mm-hmm. Euh, two yi ñu bàyyi. keneen three yi ñu bàyyi three yi ñu bàyyi. Ah, ñooñu ñu ngi def music ba léegi wala they out of the music scene. to be honest I'm not sure because uh, wante nañ léegi. Mm. and then loolu time xale la woon rek. time in Ndola. some of them I don't think that they were prepared to be become musicians. Mm. understand nga maybe dañ ko doon def rek because ñu ngi ko def time xale. I think am na am na some of them musuñoo release song. yeah so duma leen mun a oyee lifin but the third guy. after bu mu nekkee ñun ñetta the third guy kooku I think he's is he still doing music. Uh, naka la comme yaa nga ko starté woon pour clique bi comme noo ko waxee it's a neighborhood thing. Um, léegi ngeen dem ba nekk yi ñaar kese. Hmm. so how is the support from the neighborhood gaa ñu leen ko jox ba léegi wala they bit behind when you people comes on your own like LG and Swiss instead of team kon naa bi ngeen doon use bi ñoom. Hmm. well I won't say um, gaa ñu ñu ko jox oo nekkuñ ñu ko jox. because xam nga rek you are never satisfied suñ la ko joxee you are not satisfied suñ la ko joxut you are not satisfied but what I can say is uh, ñun bu ñoo taxawal team gu na dëgg la LGN Suisse la mm-hmm. ah, ak ak ñeneen artistes yu fa nekkoon mm-hmm. but ñun taxawaluñ team gu na understand mm. lu taxawaloon team ku na mooy suñ gaay the whole team boy ak yooyu noonu people like um, we had MS we had uh, the others ñoom Dave ñoom Spear ak yooyu noonu so ñoom Elboy ñoo ñoo ñoo ñoo taxawoon ok ñoom ñoo ñu together actually we were there doing our solo things but ñoom ñoo ñu boole so ñoom since day one ba they they've been here they're here so I think suñu amee ñooñu rek ñu ngi we are satisfied understand mm. so now and ne still yeah we have them mm-hmm. yeah so support be mu ngi regardless of the name change ak yooyu noonu ok um, support bank for baby comme nung ko regardless na nen change mm. um, comme nung ko dañ la wara support sa because she from there way bala ñi gëna sori am ngeen song bo xamne is everybody favorite du man kena uh, mu ngi ko doon wax Gambia nice ye ngeen ko ya jizul yeah uh, bobu bo len ko doon woy was team kunda wala fekk nek nga LG no it was hmm. how did that song come about naka la ñoy it is a song from you guys future jizo bo you two are yeen ñaar ngeen so kan mo togon xalaat ne wa dañ wara def song about the den ngeen so ok Gambian Nice mu ngi fekk time boobu ñu ngi si suñ first project moo nekkoon ah, suñ mixtape bi penca bi mm. so ñun buñ just started I think Gambian Nice was a second song buñ just started that was in 2016 ñu ngi ko recordoon mid 2016 time boobu so what happened was dañ nekkoon studio the record One Love One Love mooy one suñ first uh, li fi breakthrough song bi mm. so when ñoo record One Love and then Jizzle was there so he was like boy and I projet ngeen nekk ñu you ko yee mu ne ok dooleel my future si benn song understand man my chorus and ngeen just definitely you know ok no problem so um, few days after fekk ñun ñu ngi Gambia Gambia Nights already mm-hmm. and we plan to do it alone so ñu ne ok you know what let's just put him in so ñu dem ñu tegal ko ñaari song ñu ne ko ban nga woo bokka Gambia Nice la wala there's another song hmm. mu de mu ne ok moom dafa préfère pour bokka si Gambia Nice bi so that's how he came on board hmm. yeah but idea the whole idea of Gambia Nice ak yooyu yëpp si ñun la jógee and si mixtape bi la bokkoon yeah nañ seetaan benn music video bu jógee ko si LJ and Swayze ñu dellu si studio bi Eco TV that people My people love I'm counting. comme ni ñu ko xamee rek gannaaw bu ñu seetaanee vidéo boobu ñu dellu si fii si biir studio bi as fi jaañ naa moo leen fi toogal ba tey de caat si comme ni ma leen ko dee suma broda laa di defal do programme bi waaye dès yi loxo ma jot a jàpp contribuement nekku fi waaye allah xam naa beneen épisode di ngeen ko gis ñu dellu si waat fii euh, Eco TV da People balaa gën a sori rek gannaaw bu ñu seetaanee vidéo naa ne alkaalo nga <laughs> yaa ah. alkaalo laa tukkul daal ah, nekkuma alkaalo assistant rek yow de acting alkaalo yeah because uh, most of the job of the alkalo yaa ko de def. Mm-hmm. am na ñu mu bari wax lu ñu ma wax ne suñu buggee papers or whatever ñoom dañoo dem LG moo nekk ku dee def yow ku dee binda. yeah. waaw yaa ngi ko def. yaa ngay jël loolu noonu comme noo ko waxee yaa ngi nekk ndaw yaa ngi def music and a whole gox like gox. joobam ñu la ko jox. ndax nga mm-hmm. nekk di mingule mixé loolu ak music. well it's not that difficult. am nga rek nit lu nekk dafa am soo schedule sa life mm-hmm. or sa sa sa daily activities soo xamee noo war a def ak yooyu noonu doo dee am mm-hmm. problème so <laughs> working as the assistant alcalo or assistant to the alcalo it's not a problem mm. understand nga I can do it right uh, before before Lisa I think that's what I was doing What tax sa mm-hmm. ñu xalas late today yeah so um, it's not a problem and yeah, it's I'm very professional. So <laughs> okay, you have so let's, say, have, let's say you have two jobs. I have. Be, uh, su fekkee dafa ñëw in a point like time boo xam ne yaa ngi waroon def job mm. bi des assistant alkaalo bii nii naka nga mën a mi danga ban nga see drop non I have more than two jobs, time, mean. actually. I have more than two jobs. Yeah, I mean, like, when this went, they came in the same time, and you have to do both of them. Fonga ambo si Yeah. Nothing like that. Ban nga jëkka def ak ban nga jëkka bay, ko xinu. Ban mo gëna faatu ci No, but maybe with the alcalo thing, I have someone that can, okay. you know, because the alcalo himself is there. So if I cannot do a certain thing, I can just, you know, link him and then he'll do it. Why well, yeah. I'm in that time, see acting, like you acting like somebody. Yeah. Hmm. yow yaa di nekk da main man kon dafa mel ni nañ am talk anytime very soon ñu wax ne saay mooy nekk da alkaalo nekkul actin alkaalo <laughs> no i'm not i don't think that i can ever be that alkaalo really? foguma ko because uh, alkalo dafa am num de deme and you inherit it mm. yeah so i'm not in the line mm. to in inherit alkalo right now the alkalo is my uncle okay the alkalo and am lots of brothers yoo xam ni they they'll have to normally dang day jël brother yi then after foofu doom yi after foofu noonu noonu la so yeah so the people in line when when their time comes yal na yéex because bu alkaali bi yal fi yàgg yeah so they'll they'll they'll take over Okay. this is just temporary and I don't know bu ma ko doon jël foog ma wane nii laa see yàggee so léegi it's going on yeah ok um, comme nu moo la ko xeeb dañoo xaaragum si ak site boobu noonu ñu demagum tuuti si mbiri Swiss uh, sa co partner koo bokkal FGR Swiss group bi nii. Mm. Ah, mu ngi nekk koo xam ne dafa nubatu torop. Mm. xam naa nekk fay di nga ko léegi hmm. dafa laaxu moom gis ko sa dafa jafe hmm. te yaa ngi ni sa interview bi jël na jëlal na boppam actus na dem na na demul kenn nobody knows <laughs> waaye fe feeñu si um, interview ba pare moom his this this type of person loo xam ne dafa nu ruskat hmm. a ah, nekku di leen sonal yéen ñaar seen music carrière pour ngeen de mun a génn dem seen interview si dem perform show si wala muy génn si ko nit yi ñu ko xam yow yaa xaw a dat open tuuti moom dafa mel nit boo xam ne dafa tëju daal well am na ñu wax ne mom mo open man ma tëju seriously <laughs> yeah so <laughs> I, I think uh, non lañ mel because mm. uh, ñun ñaar yëpp bariwuñ yëngatu man so ma xamé personnel da nga né ok LG mo bari yëngatu So xamé Swiss personnel da nga né moom mo bari yëngatu but su dé xamulo ñu da nga né ñom ñaar yeb ba amuñ amuñ yëngatu mm. understand nga mm. but we are we are professionals and we have been doing this thing boy since 2016 ba léegi so anything lo xamne dañ ko wara jox respect bu mu soxla waaw dañ ko ko day jox mm. especially suñ music we don't joke with it so interviews ak yooyu if Swiss was here ndikoon mom si bopam su late amé da nga dégg mom si bopam moy push pour ñu teel understand nga oh, because man am the guy bo xamne am always late mm. when it comes to yëfi show ak yooyu noonu mom moo ma day gën a gaaw a feeñ ak solo def lu moo def so he respects the art mm. and ñun tam we respect the art understand nga Swiss music rek la dee dunda I think moom moo ma gën a respect music bi sax because man lu ma dee def dafa bari yeah so <laughs> mooy loolu daal. Mm. comme jëlal na paat na place bi pare wax na ko comme Swiss music la moo dunda moo ko gën a respect time ci lu mu wax. Mm-hmm. but anyway ñun si luñ dee ci Swiss moo nekk kulifin ki waaye anyway it's fine. <laughs> lu waaye lu boromam si boppam wax loolu la ñuy jël. Ah. Ah, comme ba léegi rek nga ne bii di 2016 yéen ñaar yi ngeen a job together. Mm, si ngeen nekk groupe. laxa ah, just two wala team Kunda yee bo yéen ñaar yi la fa nekk fekk ñale gën a ndas. non fekk ñun ñetta la. yéen ñetta bi mm. ok since boobu noonu ak balaa ngeen a nekk yéen ñaar da ngeen am any album xam naa daal EP gisoon naa ko naa. waaw EP xaw ma e, e, so album amul ba léegi. non album amul. drop nañ EP mixtape lañ njëkk a dropé noonu lañ annoncé ne ok we are in the scene time boobu lañ ñoom mi One Love Gambia Nice ak yooyu yëpp si mixtape boobu lañ nekkoon. Mm. then after loolu ñu drop EP was it in 20 2019 I think. that was after we rebranded because ñu ngi tudda Elgin Suisse in 2019. Mm-hmm. ending so ñu rebrand and then 2020 la EP bi drop so léegi fu mu nekk we are working on an album. that song called um, Barako that we released is part of the album. Mm -hmm. Yeah, it's the first promotional uh, song for the album. Yeah. Yeah. Um, but song bobu nañ ci ñew ñu waxtaan ci kanam tuuti. Mm. Waaye uh, ko am um, uh, 2019 ngeen boole LG Twist ngeen drop seen EP mm. You working on the album. Um, ba uh, LG um, the other question is yo ak Swiss you guys nakala la ek fine seen song bay Jizzle comme noo ko waxee Jizzle moo leen fekk studio mu prefer to work with you people like keneen si biti fële su buggee wookaa yéen xam naa ne yow very business minded yow ku bugg a ñëw song mm. hope du nekk lu difficult nekkul Jizzle ST or any e other I mean the new upcoming ones we have lots of songs with artistes yoo xam ne kenn xamul gars yi sax mm. artistes yi because ñun dañ dañ dañ feel ne ok tey artiste bu nga bu nga artiste boo foog ne mënul dara. te artiste boobu ëllëg ñun ñëpp foofu lañ dooree. understand nga soo dooree help artiste ñun soo ñëwee nga ne ñu da nga bëgg a collaboration the first thing we ask mooy ndax danga am song bi already su dee amuloo ko dañ dee make sure ne ok su dee da nga bëgg ñu bindal ko together we can do that su dee da nga bëgg ñu bindal la sax. we can do that but dañ war a feel ne ok yow xam nga you have that desire pour pour nekk artiste pour make ko so we have lots of songs yoo xam ne. génnaaguñ ak upcoming artistes yu ndaw yo underground artistes yi lay wax mm. yoo xam ne génnaaguñ yeah te duñ leen dee caaj booy fii dañ dee caaj xale yi ñun duñ dee caaj xale yi so mm. dañ dee ñëw rek job as far as it's a good song mu ngi cool good production good everything mu ngi cool we can do it yeah so we don't have a problem with that ok ban um, si boobu lañoo jëlee beneen music video comme ñoom dañu am vidéo si bëri uh, nañ seetaan beneen music video boo xam ne mu ngi jógee si LG ak Swizz uh, Eco TV The People Choice Sweet naa The Char Show follow leen show bi support leen Gambian thing la Gambian yaa faa nekk ñoom la ñoo wone suñ ndaw yi comme nu ma ko dee waxee rek subscribe leen si all plateforme ngeen nañ seetaan vidéo bi daal di dellu si studio bi continuer suñu waxtaan bi LG Même yoon te bi ñàkkut ñu ko bañoon góom daruma góom nigga kon ñu ma góomut bëgguñ jega nigga nekkul suma yoon if you a snake nigga middle finger wax di yëfi góor my boy fi boy get lañ boy suma mère juru tooy my boy I'm on some real shit you a toy my boy wax nga besoona léegi rata tooy ah legi rata tooy nga tal bu yàlla taal léegi boy ah legi tey la kala taka suma baat ceeni or ñaari ndoy baat suma boor Boy, neka pahanja ribor, de faste snitch, penka ti veri kor Ere uba, ere uba Yeah, ere uba, ere uba Boy, ere uba, ere uba Hey, Nima ene lupa na en ene lupa Desi man boy, yala ka de Desi man boy, yala ka de Desi man boy, yala ka de Boy, man yala ka de This is man boy, y'all out for that. This is man boy, y'all out for that. This is man boy, y'all out for that. Boy, man, y'all out for that. Messed up, ni ku kama si roof. Bañ ma ree ko si maj ñu fuuf. Ñaan ma dee li ma ñaxañu guub. Ñi sun sañoon doon all side samay bu tuub. dog suma piis te ra ñaw ka. Beat suma speed te ra daw ka. Sa xol be xese nit ooka. Stilu naa leen be vomit cim lekka. Min sa heet be si der suma der giis suma sukses nga narcisse ñaan show bu ma taxawal mu taris boy amuñ dërëm taxi ñeme xërëm jox competition boy neen la yobu sëriñ nga ne gomo yàlla ndax musuloo ko gis waaye gisoo iblis te moom nga fi génn gom alright gannaaw buñ seetaanee video bu rek ñu dellu si waat fii studio bi dañoo demaat a bit about LJC family site up. LJ um, to research mu ñu jox ne sa family bi they are not people that accept comme music ak yooyu noonu so yow jël nga leen fu so long pour ngeen even bokk start di génne ay videos yow waa Suisse hmm. loolu bokkoon a si reason bi wala danga doon laaxu sa family bi di def music <laughs> well <laughs> da nañ wax ne ok I feel I came from a very very good family hmm. family boo xam ne uh, when it comes to lu baax boy hmm. they support you and lolu ñu ko jëlé si from suma mam dal, understand nga they support am nga in all sorts of ways Then la support but then the family ta mam nga rek comme duma la waxee si lu baax leen la day jappalé and um, some of them they, they feel ne uh, music baaxul mm -hmm. and it's gonna waste my time mm. ak you know, and then so ci duggé xam nga yu bon da nga day dugga ak yooyu noonu am nga rek mm. because lol lañ am. that's the Gambia concept Gambian mindset. uh, cfe music dañ defoon ne ku si dugga rek da nga start di def drugs da nga topay nek ci yefi mandi yeah. jigen Yefi nonsense Yefi seytaane rek ak mm-hmm. yooyu noonu. so family bi dañoo wax ne mënuñoo munu ñu wona understand I can do that and still be responsible. a sanga, so lolo is one of the things luta supporting supporting mm. and. Suma, Suma, Suma, Suma Yai in particular, mom, she, she still doesn't support the music. <laughs> Understand that? She's still, and she's my best friend. Come, okay. man, mom, mom, we are very close. <laughs> But I think music, I'm that gap. Different, yeah. yeah. dama when we started and that's why sax duñ daan def I music video sa nga uh, soo bàyyi songs like One Love Gambian Nice musuñu music video mm. songs they were big benn ci foog ne am nañ music video moo tax but mosuñoo am music video and soo bàyyi xel time boobu even suñ flyers yi sax most of the time man dama dee laaxu si flyer yi mm. I'll be there dama dee siga oo oh, dama dee def pause yoo xam ne doo de dama dee teel a recognize mm. yeah soo dama daan laaxu and loolu dafa delay group bi bu baax when it comes to music videos ak you know we started doing uh, music videos after my mom found out ne maa ngi def music oh, that's when we started ok you know what Leg can yëg now, no problem let's just do music so mooy lolo dal. but still they don't give the go ahead. no some of them support. Mm. some of them my uncles are you yanga ñoom they support some of them even um, I have my cousin, ñoom follow. I'm financially said sometimes they support. yeah and they do everything possible people like Oli ak you know, too mm. seriously but still. dafa xaaj daal am na ñoo xam ne they are not into it they're especially religious people yi so yeah and um, loolu Swiss taxul moom mu xaddi wala mu soona wala mu complain la like we have to do this dañu war génne music video du ma mën a topp yow sa family because of yow nga tax man suma music maa ngi def songs yu baax génneew ma yooyu ak yooyu non Swiss mosut a am problème si loolu mm. because <coughs> apart from music videos apart from loolu and that was just between 2016 ba 2018 that was the only time I was hiding apart from Lulu, anything loo xam dafa progress loo group bi am in it understand I push yeah especially when it comes to the marketing and stuff like that pour expose ak you know. I think I push more pour make sure it's out there yeah so I don't think ne Swiss Swiss musuta complain si loolu noonu and we have been together we are brothers. Okay we've been together even before music so we understand each other we know each other's families we know a lot mm -hmm. so yeah. anything we just discuss it and then you said naka okay yeah alright euh, comme ni nga ko waxee rek dafa am benn song bu recently na euh, balaa ma la see laajte question dañoo seetaan Barako mu ngi nekk music video bu classique euh, bu am classe bu clean bu set song boo xam ne ku ko déglu sa yaram daw am ah, man suma maas yoo xam ne si façon famille boobu leen jógee dama ko dee déglu over and over again taxoon na sama yaakamti am na si biir studio bi. Mm. Ah, Barako ah, Swiss LJ ak ST. añoo fa nekka nañ ko seetaan musique vidéo boobu suñ fa jógee ñu gën a ñëw waxtaan song bi ak vidéo bi Eco TV the people's choice the Chart Show ak Sweet Jagnar brother on the hustle. No brother on the struggle. It's been a long journey. But if finding Barbara could do a job, we would see them. Cheers to success. Soda da big man pen soda Boma tina nam fantinya yeah yeah Padua for barakosinana Meta katala wato lesita yeah Padua for barakosinana Padua for barakosinana Padua for barakosinana Adua for Barakosinana Adua for Barakosinana Oh, Martina, I'm Fantina, yeah, yeah, yeah Barke du jema kum feñ wone katanam barke motax mang si win haw ma ñaka man barke la yore suma yaay ñeka barke man bubu barke tass don taw dina taka man Problemi chop mer mi nema am Problemi problemi chop ma gena ñefe man Problemi problemi du jeex nobody gives a damn Problemi teki ñu la chop lolu mo fi am Wata ming mang feng soto Doni konton tai buka si mang soto Korgeto koto ta sama kono Kapoto lon di saliba kono Doni wata ming mang feng soto Wama dina nam fantinya yeah, yeah. Padua for barako sinana Padua for barako sinana Meta katala wato lesita yeah. Fadua for Barakosinana Fadua for Barakosinana Fadua for Barakosinana Fadua for Barakosinana Omatina oh, nam fantinya yeah Bisal oh, kijang, sino tijang Hani manyeneng ka hosulole bijang hani tijang kunjenge tijang dokunin tara kosoda male bijang akilo bijang wakilo bijang manjiki mola rescue tijang bata bijang meta batala jang ibatunga falenga minta kijang mbota damin mamfen soto na saliba mansiran soto na boliba emano soto bari na duramba mansubo soto tolpota damin mamfen soto Bomatina nam fantinya yeah yeah Padua for barakosi nana Padua for barakosi nana Meta katala wato lesita yeah Padua for barakosi nana Padua for barakosi nana Padua for barakosi nana Padua for barakosi nana Padua for barakosi nana it's Jill Life Music. gannaaw bu ñu seetaanee musique vidéo boobu mu ngi nekk Barako very emotional emotional song boo xam ne ku ko déglu yaa ngi nekk koo xam ne yaa jóge si famille bu struggle man ku ma gis sax lu ma tuutee ñeme xosul ñeme ut xaalis bi ngeen xam ne dama jógee fu fu métti foo xam ne comme song bi like every part of the song rek dama feel ne comme lii is talking about me um, LJ alko barako ye barako sa balama wa je ñun ñep dañ bëgg ñan lafta ko barako so tole yalla hmm. and songo ñing like the song you people talk so deep da ngeen dem bu baax muy yow muy ST man the part I listen the mo mu ngi nek yow ST ak ah, yeen ñep dal bo ST the part of ST like dafa dafa bit so much dafa dem fu sori so yeen barako song mom naka la di barako kan mako dunda si yeen wala yeen ñepp dunda non ñen ñepp ko dunda mm. because ñun ñëpp ku si nekk am nga jafe-jafe yoo xam ne euh, daf di da si jaar. Mm. and then a lot of people tam jaar nañ si. so ñun ñëpp a ko duna and I think song bi lu tax mu stand out mooy xam nga normally soo dee binda song da nga dee binda some sometimes da dee binda loo xam ne you you don't relate to it. wala loo xam ne keneen moo si nekk but lii comme it's us our pain. understand nga our struggles ak yooyu noonu ku si nekk it's personal. yeah so dafa over easy mm. pour ñu mun koo binda because danga family tey rek ñu ne la describal sa boppa it's easy pour nga describe sa boppa because yaa gën a xam sa boppa so suñ la waxee ne ok waxal si sa boppa tam eh, sa sa blessings wala sa pain wala sa struggle it's the same thing so Barako su ma la ko waxee Barako we wrote it in 2019. waaw yaakaar naa ne. yeah 2019 lañ bind Barako. Mm. and depuis bu ko bindee we felt ne. we needed a Mandinkar Rafa there. And the first guy that came to mind was ST. Okay. Understand? So 2019 new try ko time bobu mu ngi album mën nañu after album am bi mm. ñun tam fekk ñu ngi defar suñu mixtape bi moy suñu combat after suñu rebrand bi mm. so ñu ne okay you know what nañ denc song bi rek so ñu denc ko then after lolu mixtape bi bu mu jéxé album bi mu jéx ñu tok contact ko way mënuñ ko wona am because mu ngi def to yaa ngi fii so dafa faak ne amuñ ko ñun tam lenn la gis nga suñ designé dara ne ok nii lañ koo defee suñ ko amee wut noonu rek du ñu dee lifin sometimes dañ dee am plan bi waaye plan dañ dee push pour make ne am nañ plan yi dox na suñ ko amul dañu soog a ut plan bi so ñu soog a dem si plan bi so AST was forever the plan A mm-hmm. and then we had another uh, Mandinka Rava the plan B there was a time dem nañ ba booy yi yaxamte ñu ne ok why not léegi ñu try plan B bi but after ñu dem ba si kanam ñu ne noo it's ST or nobody so ñu toog di xaar and then uh, fortunately in uh, last year before just before weeru koor bi few weeks before weeru koor bi ñu toog a ST so ñu ne ko xam nga naka la legi it's high time ñu def song bi. Mm-hmm. mun nañu yee maa ngi paré right now because right now ma ngi free dafa ne ko dugaaguma ci album nga mom dafa def album every year. so sin si lañ decide pour just xam nga am rehearse ak mom and then ñu dem book book session and then ñu dem mu record partam bi and then ñu def final recording bi man tam ma record suma part suis ak yoy ñu dal okay yeah. was that song all wrote by yen ak parti ST wala da ngeen ko bàyyi moom mu demal bopam no. Uh, musique moom mam nga it's just teamwork. Mm-hmm. understand nga because chorus bi vases yi ak yooyu noonu yëpp ku si nekk ku si nekk loo fa teg daal yaa ko bindal sa bopp. understand Suisse moo bina chorus bi maa bina sama vase bi ST moo bina vase am mm. but léegi-léeg si time record bi recording session bi ak yooyu kii tegee ko nii keneen noo ba comme. and direct yeah but the text ak yoyu ko ci nek ya. binal sa bopp yeah ah, waaye ah, balaa ñu gëna a yow doo ñu freestyle tuuti sa fat ñu gëna mëna am question ci la jox ci boobu man dama soj nak moy problème waaye dañu ko jot dañu jox freestyle fi soj du fi hmm yeah ah barke du jema bot fu mu feeñ wane kàttanam hmm. barke moo tax maa ngi win man xawma ñaaka man barke la yoré suma yaay ñeeka barké barke man bobu barke tax su doon taw man dina taaka man Problemi yi cob maire bi ne am Problemi problemi job ma gën ñefe man Problemi problem, problème yu dul jeex nobody gives a damn Problemi yi tekki ñu laa job loolu moo fi am mm. mbota daming man feng soto mm. dol ni kontongta ibuga simang soto korgeto kotota sama kono nka potol londi sali ba kono yep that's the part I like about it man sa dem ko wulle ngo kontom ko da sama ban sa kontom ban de sima so we all live it so life bu ñep live la li da funa gambian bu fay xam how ma legi halé 2000 because jo 90 maybe dañ dé try pour suñ doy buñ daj luñ daj but the 90s we all face this story hmm. so saras a a na 2019 hmm. ba 2023 bi 2022 ah, so it's expensive it's classic en amna na lo xamne lu nit wara gis deglu mu yokala jom ak fayda mm. amul ci song bi mm. it's a very good one comme nu ngandi woné di vidéo bi so len paré ngeen dem youtube follow ko a ah, subscribe ngeen seetaan LG ak suisse ak sen yenen vidéo way dañ duñu gëna jéxal interview bi ah, waxuñ ci baroko vidéo bi mm. vidéo bi ko len ko suutal en how long la len jël vidéo bi XD moko shoot XD expressions shout out to XD directed by CJ moom moo nekk uh, I think the owner of the Hamanakal, of yeah. and uh, it took video bi dañ si sona pour ñu am ko but one um, moo nekk the most expensive song buñ musa def so but spenduñ si dara ñun personally <laughs> the reason song bi bu depuis buñ ko bindee léegi ku ko déglu danga dee bëgg a contribute oh. understand I can remember before we started recording suma benn cousin mu ngi jóge woon France ah, his name is Hatab mm. he was like boy da ngeen war a record lii moom moo njëkk a xaalis pour ñu dem def advance pour record song bi so shout outs to Hatab mm. after loolu noonu ah, boy si seen boppa ñoo tam ñu contribute pour ñu continue payment bi mm. after loolu CJ mooy da director video director moom mu ñëw si studio bi gis song bi déglu ko mu ne ñu booyee xaw ma lan ngeen plan pour song bi bot lii man maa ko shoot fekk am na beneen song buñ ko buggoon a jox pour shoot mu ne non barako rek laay shoot su dul barako ñu bàyyi en bañu ma si dara understand nga even su dee amu leen xaalis sax mm. ñu seet naka la ñoo négocier naka la ñoo jaar waaye song bi maa ko bëgg a shoot and then we had another guy called Imam Marena mm. moom tam mu ngi jógee States ñëw dégg song bi moom tam mu ne you know what lan ngeen nekk di xaar ñu ne ko ok dañu nekk di jéem a dajale xaalis pour shoot and he was like ok non am gonna you know finance the video so mu ne ñu ñu wax ko budget we gave him the budget for the whole thing and then we just uh, yónnee xaalis bi that very night understand nga so barako noonu leen ko liggéey yaa ngi so XD lu mu ñu wax mooy dem leen ngeen investi vidéo bi pour everything lu ñu soxla. ñu am ñu am ko. and then may fii loo leen ma war a fay boobu comme loo leen yéen seet leen rek loo leen ma bëgg a jox. so after noonu lañ def ñu ko jox man paas laa ko dee ooyee because joxuñ ko lu am fayda. ñu jox ko loolu dañ lu des yëpp ñu pom ko si vidéo bi. macha allah yeah so noonu lañ shooté Barako. moo tax su ma la ko xee nga gëmma this song touches everybody. yeah so ku si def dara rek da ko si war a def. ah ku si. danga ko def everybody because gaañ nga laakal ñu so saras to you guys at LJN Swiss uh, ST Baroko that video is very classic man moom bëgg I fall in love with it and saras to you guys for the job well done Thank you. balaa ñu génn studio bi uh, what are the difficulties boo leen face as team and individually yow part xam naa Swiss moom su fi toogoon moo well difficulties I'll, I'll, I'll say she said it, bi mm. the main problem we have my financial difficulties okay dañ sant yàlla we have people uh, yoo xam ne sometimes su métti ba métti métti sometimes they show ba but then xam nga ñun ni ñu yare ñun yarewuñ ñu dem di ñaan ak yooyu noonu dañ yare yaree dem leen loo soxla nga dem nga ñaxa ko understand so pour invest si suñ song si soo dégloo suñ sound dama ko dee wax always mun ngaa wax ne ma ñii seen woy mm. mun ngaa wax ne ñii neexuñ ma waaye mu doo musa wax ne ñii seen production baaxul understand nga we we invest in production foog ma ne am na booy bu ñu dee gën a uh, invest in production fii te loolu yëpp xaalis moo ko dee waral understand daf ñu dee jaral ñu toog ay five months duñ drop dara because li xew song buñ bugg a defar wala sound buñ bugg defar xaalis bi dafa bari te dañ fii ne mu am nañ shortcut mun nañ koo dem uh, recorder si cheap producers wala mun nañoo def nii def ne la mu yomba waaye non dañ dee ne lii lañ ko bugg a defee noonu lañ ko defee suñ ko amee wut noonu dañoo dem uti xaalis bi so yi dañ dee am problème boobu noonu. Mm. dañ dee am problème because ñun we have been independent depuis bu ñu starté music ba léegi we have been independent. Mm. so imaginal LJ war a liggéey Suisse war a dem liggéey deewoo dajale tuuti dem def sound ñëwaat toogaat because doo lekk dara. ñun duñ dee lekk duñ dee naan duñ ko dee sol. yëpp si musique bi lañ ko dee pomp so financial difficulties moo nekk suñu problème. as a group group. Um, yéen fu mu nekk nii individual bi boobu naa la ko laajte fu mu nekk nii um, nekku leen di liggéeya benn label kenn signul leen wala something oh tamit are you guys not ready for that comme ku leen bëgg a sign liggéey ak yéen. well people dañ dee ñëw sometimes once in a while nga gis benn promoter or benn somebody that wants to invest in music mu ñëw xam nga ne dafa bëgg a liggéeya yow but xam nga conditions yi duñ dee favorable dañ dee feel ne ok most of the time dañ dee ñëw pour just rip la off rek understand nga ñëw liggéey xaalis sa ko dem seen yoon hmm. and ñun we are not that desperate tam métti na but we are not that desperate dañ they dañ gëm suñ bopp and dañ believe ne ok uh, with or without people's uh, people people jump in the ship will still make it understand nga so gaa dañ dee ñëw léegi-léeg ñu toon leen down but then recently daf dee am ñoo xam ne dañ dee ñëw with good intentions tam ñoo xam ne they they really a work with us ak yooyu noonu they wanna push us ak yooyu but ñu ngee wax daal xam yii daf dee jël time time waaw fu nekk hmm. am um, du danga am beneen liggéey bu utee alkaali bi ak musique bi boo xam ne yaa ngi ko def boo xam ne yaa ngi ko pour jàppale seen boppa seen musique carrière I have my own business hmm. Morella Graphics so by her most of the artwork that comes from, not most, but 100%. All the artwork that comes from LG and Swiss, uh, it, it's Dangdegis Bena logo, Morella Graphics. Yeah. That's from my, my business. Mm -hmm. And then boy you bari Dangdegis Sen logo. So then they buy health, Dangdegis Morella Graphics. That's from me. So I have a printing, uh, print shop. Mm-hmm. Uh, dañ they def printing you, you know all those other things you have them. it has to do with adverts you know. noonu mm. yeah so my silulu si loolu all right. Um, uh, are you, you are you guys working on any project right now? Yeah, album right now. We're working on album. 2023 or 2024 Hopefully then bëgg 2023 bi lañ ko Yeah, if everything goes to plan. Mm. And then suppose it dry out. <laughs> Inshallah then pare daal boo si di driver Braco bi jaay na leen ba pare ñu bëri nañ ñëw te neen invest si yéen incha allah rabi mm. um, comme balaa ñu génn studio dafa am benn question boo xam ne muy loolu jar na laajte jarta laajte ah, dañu two question in um, two question in one question la moo what as what was what was your saddest moment and your best moment in life comme loo xam ne mën nga koo well saddest moment I'll say when my granddad passed away suma maam bu because he was like a dad to me Understand? So, uh, boom ganyo. Yeah, that's the saddest moment, and I've never felt like that before. Mm. Muganyo, and then since boom ganyo I haven't felt like that again. Oh, okay. Yeah. So that's the saddest moment. Mm. Well, happiest moment I think will be seeing my mom after 19 years, <laughs> because <laughs> yeah. After 19 years, Yeah, because then gejo na gisante bu baha baha yeah so after finally uh, yeah that's the happiest moment so far. alright um, baax na as Suisse dañ naa bàyyi nga tàggatoo waaye balaa ngaa dem dañu freestyle. Uh, si freestyle na freestyle na pare freestyle because ñun amuñ vidéo bi waaye naaw so dañoo freestyle mu bokk si suñu interview après yow nga gën a sign out den man tama mun a sign out. waaw oh, bi mooy man gaa mee ne sama def fàtte lyrics yi. <laughs> yow soo mu am ne Gambia yëpp moom lañ gën a bugg a seen nga fàttali religion. yow foo ko that that since 2016 ba léegi. Mhm, dafa yaa taxut yaa ko woy la eeyoon laajte la ko da nga koo a <laughs> kon. ah kon yow. non boobu non booba seerut booba <laughs> seerut. give please si Gambia naa because vidéo bi lañ soxloon te vidéo de so dañu def freestyle. waaw ah, naa damaa ñëw càng fii rek. parce ah. suma boobaa. cangal ah cangal gars yi wax na yaa xamul te léegi ah lii yëpp dafa ne nga ne da dee faatu. soo cangee ne la understand. Mm. Gambia nice. Oh, non waaye. yow dégg nga comme <laughs> caméra man sax mën a gën a am sa <laughs> this is serious <laughs> enjoy dañu freestyle la seriously eh? No, ay eh, boobu nañ ko denc waaw baax na ñun nañ jël audio bi dugalal ko suñu boppa ak Gambia Nice boromam daf ko dee fàtte waaye ñun ñu fi toog fàtte waaye bandu tama freestyle al ko ko mm. um, LJ thank you for coming uh, thank you for accepting suma invitation bu gaata mm. Eco TV International loo am pour wax la caat so well thanks for having me appreciate na ko bu baax mm. yéen naay second interview bu ñu am after Barako ñu ngi soog am nañ benn démba so tey listen and yéen a njëkk a reach out sa actually so appreciate nañ loolu bu baax it's it means ne yéen a ngay pay attention and then tam you you guys are willing to you know hop in and support when necessary so thank you very much appreciate nañ ko da crew ak yooyu noonu ñu nekk seen gannaaw yëpp jërë ngeen jëf mm. and then um, déglukat yi déglukat yi wax neexul mm-hmm. understand su dee wax naa fi loo xam ne nii mooy loolu jaxase na boppay o rong na ak yooyu maa ngay jégalu wax neexut especially wax boo xam ne ñu ngi teg caméra sa kaw mënatula see dellu mm. so ah, maa ngi leen a jaajëfal ba pare ñu jël seen time seetaan affaire si ba jeex tag mm. maa ngi leen a jaajëfal it shows ne ñoom tam am nañ interest si luñ luñ nekka mm. and then to the team ñu ma àndal DSO suma mooy suñu DJ bi <laughs> DJ DSO. Ah. ak Sega. Ah. waaw muy fële. <laughs> moom mu ne mooy suñu manager bi. ok manager. <laughs> waaw ñoom tam maa ngi leen la jaajëfal yeah so um, thank you very much mm -hmm. so that's it LGN Swiss yeah um, you welcome uh, comme nu mu ko waxee rek uh, Eco TV international la ak Switch Jagne comme nu mu ko waxee man tam ma waxee ko noonu ñu ne wax neexut uh, sax ma man moo xam ne naar laat mais bi dégguma olof maa fi wax lu ma war a wax ma fi wax te laalu borom wala déggewul ko nu ko mën a déggee rek mm-hmm. maa ngi jéggalu waaye léppal moo tam mu neex sa xol waxuma ko borom bi la ah, moo ma ko jàllale si man wax fi dama lay toke di yobu luma fa daj la jël jox len way anyway ñu le nawa saras to you ah, a ñu follow da ci arso ñoo xamne duñ tardé mu di ko seetaan so bu doga dor la nak ay xalé la ñu ngi ram way bu ganen ngeen support ah, ngeen bokk ci so bi ngeen sponsor so bi tammi mu gëna dem because pour ndaw ya tax mu a pouce feeñal suñ ndaw yi lepp lañ bu leen bu ga seetaan fu mu leen wara ko ñu ko fa Eco TV da caat soo ak suy jaañ LG ak Suisse way LG mo ñew pour ñom ñaar yi uh, out uh, but next time at ah, the chat